man maa nekk Moussa seen nekk jeune du village suñu ndajem tey mi li ko waral mooy dañoo nekk ay citoyen nekk ay sénégalais dëkk ci réew mi li nga xam ne moom la réew mi di am ñun mënuñu koo am tey jii suñu dëkk bi lëndëm na lëndëm goo xam ne am insécurité boo xam ne nii vraiment foo ko takk weesu na ko te courant bii nga xam ne nii moom la ñuy jooytu moo ngi jóge xombal romb Ndengaleer romb Nduuf dem njéen si rax si commune bi romb Mbarjaak à 100 mètres. 100 mètres la rombee Mbarjaak mel ni ñun dañoo bokk ci réew mi léegi nag dañu dañoo sonn ci lëndëm gi sonn ci insécurité bi moo tax ñu ne tey jii dinañ toog dox suñu doxu ñaxtu bañ xam na ñun ay sénégalais lañ ay citoyens lañ. léegi nag Mbarjaak gépp ànd nañ def benn say ñu ne suñuy carte électeur moo ngi nii. plus de 900 électeurs ñoo fiy voté benn bureau de vote la am ñun ak ngoojaan ñoo ko bokk. léegi nag nee nañu bu fekkee ne waxuñu ci suñu courant bii pour mu takk ñun lii parrainage duñ ca bokk lu nekk élection duñ ca bokk carte carte yaa ngi nii plus de 900 cartes mi ngi nii ak man. carte yëpp nag man maa koy diriger te ñun bu ñëwee duñu voté duñu voté bu ñëwee duñu parrainé duñu parrainé jox nañ ci ay jéego plus de vingt ans ñoo ngi ciy dox dara mënul nekk lii suñuy maam ñoo ko doon dox suñuy baay ba tey ji affaire bi nekk ci ñun booba léegi kenn ku nekk nag ñëw nga fi dig ñu promesse nag la ñuy la ñu la dootul am promesse dootul am courant euh, bu courant bi tàkkee poto yi leer nañ ñu voté bu courant amul jarul sax ñuy def bureau de vote waaw loolu daal mooy li nga xam ne nii mooy moo mooy ndajem tey mi nii insécurité bi lu ñu jural mooy ñun ci àll bi lañ dëkk mënoo dëkk ci àll bi te doo yor ay jur doo sàmm dëkk bi lëndëm gi mën nga génn guddi nga joggi jaan mu màtt la te bu lamp amoon nga xam fan ngay teg say tànk loolu du am boo yoree ay xar wala ay nag loo yor sa kër dañ koy jël ndax dafa lëndëm loolu mooy insécurité bi jigéen day am fii doom ngay dem di wëri koo xam ne nii moo koy yóbbu sax da problème ndax boo génnee doo xam fooy teg sa tànk doo ñemee génn loolu yëpp problème la ñu bëgg nag ku ñu dimbali taalal ñu courant bi courant facteur de développement la loolu yëpp bu ñu ko amoon suñu jigéen ñi dañuy mën a liggéey boo amoon sa frigo di takk sa ndox sax boo ko jaayee am ci 100 francs wala 200 francs nga def sa poos loolu lañ bëgg loolu nag su amul élection moom du ko am yaa ngi nii du ñu voté du ñu voté du waaw loolu mooy li ñu taxoon jóg. man Ndiaye Pouy laa ñoo ngi fii ci Mbarjaag di jooy suñu tawat ci courant bi ñun waa Mbarjaag nag ak Ngawjaan ñun dañoo sonn ñun dañoo sonn ci naxe bi ndax ñun bu naxe bu bu élection jotee ñu ñëw ci dëkk bi di nu nax heure de naat la ñuy dugg ci dëkk bi yor seen i pësero yor seen i 4x4 ñëw di nu nax bu élection jotee ñu ne dinañ leen monteel courant duñu nu monteel dara te di nu nax sunu dikkee bu ngoon jotee sunu gone di seetaan wiiri wiiri am na ci ñoo xam ne wiiri wiiri bi ci am ñun jigéen ñi ñu ngi ci dëkk bi bëgg a liggéey mais ñàkk courant moo tax mënuñoo liggéey bu ñuy fekk ñu am courant dinañ am suñuy frigo di liggéey di di dem ci garage bi di liggéey mais mënuñu ko am ñu ngi yar suñuy xar yar suñuy bëy ñu ngi yar suñuy xar yar suñuy bëy mais ci dëkk bi la ñuy xar mi mbaa bëy fees ko ci dëkk bi yéen ko yóbbu te duñ ko gis loolu nag moom la ñu bañ fi mu nekk nii ñoo ngi yor suñuy gone doom yu góor ñu nekk ci dëkk bi fi ne ñun sunu sunu ko jox gone yi ñoom ñoo mobilisé fi mu nii taxaw di jooy courant bi ñun nag ñu ngi yor suñuy suñuy carte d'identité xale lu mu fi gën a ndaw ndaw am nga carte d'identité mu ngi ñu yor teg ñu ngi ko bloqué teg ñu ngi xaar nag ci élection yi ak jàmm yi. salaahu salaam di leen nuyu yéen ñeet yal na yàlla fay leen taxawaay bi euh, lii itam lenn moo ko waral même ak ñëw gi ma ñëw mooy li nu jaaxal rek mooy wax dëgg yàlla yàgg nañoo bëgg courant te mënuñu ko am kenn rek moo kilifa moo ko yor da ngay seet ci ñi nga xam ne boo ko fa jaaralee loola antu nga jaarale ko fa rek waaw loolu moo tax ñu jaarale ko ci yéen bu ko defee itam comme nin ko jaaralee ci yéen ngeen jàllalee ko comme nin ko bëgg ah noonu rek lañ ko bëgg ñi tam euh, def nañ macha allah li leen war parce que def nañ da mooy nekk benn fi mu ne koo gis am na lu mu sol pour wane ne lii naqari na ko parce que am na ñoo xam ne dañuy jógee Dakar bu ñu jógee Dakar ba kër ñu ñibbi seen appareil day fay te it loolu xam nga gënul ah loolu gënul gënalul man mii ak keneen ak keneen daf loolu daf lay dal loolu nag moo tax ñu jóg man it en tant que imam ma jóg pour wax ci kon bu ko defee ñuy ñaan président jëm yëf yi moo ko yor ah mu yombalal nu ko rek yéen itam ngeen jàllale na ko comme ni mu war a jàlle comme li yàlla wax ne watlu alayhim naba ab na adam mais nag bil xaq kon yal yàlla may digg ak topp xeer ci boppam wasalaamaaleykum wa rahmatullah monsieur Dame Loum euh, porte-parole des jeunes euh, du village de Ngodian. comme vous le savez, et l'a bien dit mon ami, ce rassemblement est venu à son heure. Parce que depuis 1960, bien avant cette année même, donc euh, nos parents étaient là, nos arrière-grands-parents, ils sont tous partis en réclamant cette électricité qui devait nous être chère. Mais malheureusement, en vain, nous sommes là. Nous courons derrière les promesses politiciennes. Ils viennent toujours toujours pour réclamer, pour nous faire des promesses qu'ils ne respectent jamais. Mais on a marre, Et cette année-ci, ça va cesser. Parce que maintenant, le destin des deux villages, à savoir le village de Ngoyan et le village de Mbariak, c'est entre nos Plus de promesses. Nous allons respecter maintenant ce que nous disons ici. Voici les cartes que nous détenons. Ça fait plus de 900, voire mille Alors que seul le président de la République est capable de régler la situation. Seul le président Macky Sall. Donc plus de promesses électorales. Nous allons boycotter les élections, pas de parrainage. Pas on dit. il y a une preuve palpable. Voici une demande qu'on avait écrite depuis 2002. Voici un accusé de réception. Mais jusqu'à présent, ça tarde à être acheminé. Comme vous le savez, l'électricité qui est partie maintenant de Khombol à Ndiayen Serak, ça devait partir de Ngodian en passant par Mbardiak et Ndengler. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Il y a un autre village qui est à côté, le village de Kermandiaï. Si vous partez de Thiès jusqu'à Ndangalma, il y a seuls trois villages qui sont sur la route nationale et qui ne sont pas électrifiés. C'est le village de Ngodian qui est sur la route nationale même, n'est-ce pas, du courant électrique. Mais il y a aussi le village de Mbariac et de Kermandiaï. Mais nous demandons maintenant si nous sommes partis du Sénégal ou pas. Mais nous sommes des situations à part entière. Nous sommes des citoyens. c'est pourquoi maintenant nous réclamons ce qui nous est de droit. N'est-ce pas Nous devons avoir maintenant ce que nous réclamons, à savoir l'électricité, qui est un facteur de développement. Nos femmes sont là. Elles financement. Elle court derrière les banques, derrière les institutions financières, mais jusqu'à présent en vain. Maintenant, plus de promesses électorales, mes chers. Si nous n'avons pas ce que nous réclamons, si nous n'avons pas ce que nous réclamons, je vous dis que je vous assure que nous allons boycotter le parrainage, nous allons boycotter les élections. Il n'y aura pas d'élection à Mbariac, qui est un centre de vote. qui unit le village de Ngodiane et le village de Mbardiac. Et aucun de ces deux villages ne peut pas aller sans l'autre. Donc c'est pourquoi nous demandons au président de la République, solennellement, qui est le gardien de la Constitution, pour nous vienne en aide. Et nous savons Et nous savons qu'il est en mesure de régler la situation. Parce que c'est un homme de défi. Le président Macky Sall œuvre pour l'intérêt des Sénégalais et l'intérêt pour les populations sénégalaises. Donc, Monsieur le Président, avec tout l'honneur qu'on vous garde, nous vous tendons la mais encore une fois de plus pour que vous nous veniez en aide en électrifiant nos deux villages maintenant qui en ont marre maintenant de l'obscurité, mon cher. C'est ça qui